الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi Sédhiou yëpp di nuyu mbokk jullit ñëpp di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. liggéey bi falilaa alhamdu diiru bi mu tàmbalee ba léegi depuis le 22 ba tey yàlla dogaloon ay seen mbokk yu jóge Dakar ay mbokki duaat oustaz Ahmad Demba Sow oustaz Saïd Ly ak man mii di wax ak yéen ak oustaz Ousmane Diouf ak suñu mbokk bi ñu àndal muy Basir Masali ak Ousmane Cissé Moustapha Sadio ak Siaka ñun ñoo àndoon gis ni waaw ak Aline Diop insha allah barakallah suñu ak Aline Diop ak Aboubacar Traoré ñoo àndoon gis ni suñu wàll ci liggéeyal diine bokk na ci ñu seeti suñuy mbokk.
fi nga toog baaxul de.
waaw jokkalanteeg ñoom.
foo nga avancé.
ay kàddu dama dama.
ay kàddu ak.
non da ngay xoolal gestu.
waaw d'accord.
gis nga noonu ay kàddu asalaamaaleykum ak ak kàddu islam. kàddu islam yooyu nag bokk na ci bi ñu ñëwee jóge Dakar ñëw Ziguinchor.
fi mu toog baaxul ñu xoolal.
ngi jàll Goudomp def fa. trois fii jours baaxul.
trois jours yooyu ñu def Goudomp.
foo nga avancé.
def nañ fa ay liggéey yu am solo macha allah. liggéey ya ñu fa def bokk na ci.
cheikh bi foo nga jóg.
waaye incha allah depuis day puus nii puusé nañu ma.
dugal taabal ba la.
waaw puusal moo tax.
baaxul de fii kay moom il faut ñu teg fi siwo bokk na ci liggéey yooyu ñu fa def.
régleel ñu fii fii il faut ñu teg fi dara.
amaloon nañ fa ay programme film
Fii faut ñu teg fi alhamdulilah dara. il faut ñu teg fi dara.
amaloon nañ fa ay programme euh, formation ci suba yi bokk na ci formation yañ fa amoon ci suba yi bokk na ci ak tafsil wa takfin lil mayit mooy sàng néew sàng néew ki ko doon taxawee mooy suñu bokk Ousmane Diouf bokk na ca it beneen mawdu buñ fa defoon ci fukki tomb ak juróom ci liy yàqal nit waaye ku ne xam na ne dëkk yi moom ndox dafay bari Euh, bokk na ci programme conférence yañ fa defoon muy ak tawba ak laa ilaha illa allah yàlla dimbale ñu yooyu jeex ñu ñëw fii ci Sédhiou ala kulli haal liggéey yi fii tamit macha allah gis ngeen ko gis ngeen bokk na ci programme yi ñu tëral fii bokkoon na ci al islam wa shababa ki ko doon taxawee mooy suñu mbokk oustaz Saïd Ly waaye bokkoon na ci tamit al unfu nahwa nisa violence faite aux femmes ki ko doon def mooy suñu mag Ahmad Demba Sow amoon na tamit wafaatul habibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man maa ko doon taxawee après mu am beneen tomb formation nan la ñuy sàngee néew nan lañ koy sàngee tey bi ñu xëyee nga xamante Nekk ne na ma tey woon, lañu ma war a woon, nekk jeexal na ma woon.
suñu programme ku ne ma woo.
programme bi ñuy jeexal tey nag mooy li ëpp solo ci liggéey bi lan mooy li ëpp solo xam ngeen ni chia aw xeet la ak communauté la ab mbooloo la ab pas-pas la boo xam ni bu yàgg a xeex islaam la réer jullit ñu baree bare ca jamonoy saxaaba ba léegi ñu ngi am di yàq te loolu dana feeñ incha allah ñu ne woon nag bërëb yi comme ñoom am nañ fi accès sud bi yëpp am nañ fi doole lu mel ni Casamance côté Sédhiou yi am nañ ci ba Kolda ba Wélingara ba côté yooyu bëri nañ fa kon dafay jaadu nag ñu ñëw fi waxtaan ak yéen ci ñan ñooy chia ñan ñooy chia kan moo koy taxawee moom mooy al axul fadil Ahmad Demba Sow moom mooy taxawee loola beneen bi ma aqidatu chia seen pas-pas seen pas-pas lan la ki koy taxawee mooy ala axul karim saïd li moom moo nekk sama côté ndeyjoor incha allah ñun bu ñu paree dinañu idaafa suñu wax ci seen wax ngir ñu résumé lan mooy chia ñan ñooy chia lan mooy seeni œuvre lan mooy seeni liggéey te dana feeñ ñi bëri na ñu ñu nax te xamuñ ko woon même fii ci réew mi bëri na ndax bëri na projet yu ñu fi def ci ay tool joxe ay nag dimbale ay nit tabax ay jàkka ñu bëri seet côté social bi ñuy dimbalee nit ñi ndeke seen côté diine ñu ngi leen koy yàqal loola moo tomb mawdu bu am solo bi su loolu paree nag kii njëkk a tàmbale mooy suñu mbokk Saïd li waxoon naa mawdu bi muy def mais ñu ngi ko tënk ci 30 minutes incha allah su paree suñu càmmoñ Oustaz Ahmad Demba Sow dina jël moom tamit man humu chia bu ko defee loolu nekk une heure de temps seen diggante ñoom ñaar su paree man ma résumé daanaka dafay tolloog li ñuy tuddee daanaka au moins une heure et quelque rek mawdu bi incha allah dana pare ñu delloo si leen ko yéen ndax waxtaanu tey bii bugguñu rek mu jóge ci ñuy wax rek ñuy dégg mais bu ñu paree yéen ci seen bopp am ngeen i gisin am ngeen i xalaat am ngeen i laaj su ko defee baabul masala wal jawaabi sa yuftax insha allah danañu ubbi buntu boobu rubamal wurayqaat insha allah kayit yi dana wee ku mën a bind nga bind sa question ku mën a bind aussi sa sa sa mbir nga def ko waaye ku mën a laaj it danañ la tontu insha allah kon li ñu fi teg moom mooy muhimmatu daawa ak tontu li lëndëm ci bopp nit ñi insha allah fasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon waxoon naa leen ni kii njëkk a pré ki ñu njëkk a tàmbalee mooy oustaz Saïd li xam ngeen ko yàgg na fee ñëw insha allah barakallahu fiihi wa barakallahu lana wa alayhi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullah ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi lii cheikh bi wax muy cheikh Umar ci ñii ñu nar a fàttalante ak julit yi ñoom ñooy ñan luy seen pas-pas ana luy seen yoon ana luy seen taxawaay lu jaadu la ci waxtu wii nu toll lu tax mooy xam ngeen ne lislaam tey li ko sonal ci àddina bi mooy ay doomam benn boroom xam-xam bu mag dafa bind ay wax bi mu bindee wax ji mu jiitale wax ji tuddee ko al islaam bayna naarayni quwatu aadaihi wa jahlu abnaihi l'islaam day tey dafa nekk ci diggante ñaari safara safara bi nekk ndeyjoor bi nekk càmmoñ wala bi nekk ci kanamam bi nekk ci ginnaawam ñu laaj ko ñaari safara yooyu lan la mu ne quwatu aadaihi mu ne nooni lislaam yi dañoo bëri doole ñoo ëpp lislaam doole ñu ne ñaareel mu ne jëhlu abnaa yi doomi lislaam yi dañoo réere lan mooy lislaam looloo tax ba ñu réeree ci lu nu leen woo rek ñu wuyu tey booy xool diine ji di lislaam yoon yi ci dugg li ci dugg ci ay woote kenn xamul nu mu toll tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dekkiwaatoon mu gis lislaam bi fi nekk ni mu nekkee ay kuréel nekk ay mbooloo nekk ay kër pas-pas yi wuute wallahi yonent bi dina yéemu ci yàlla te pourtant moom la yàlla yónni woon tey dugal nañ ci lislaam lu yonent bi xamul woon loolu nag def ci bokk mbooloo mi ñu naan ashia ñoom da ngay dégg ñuy saxal ne anna shia asluhu yahudi yahudi bi ñu perdee medinatul munawwar perdre xeex bi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi exilé leen génne leen ñu tasaaroo ci àdduna bi ndeke nelawuñu ndeke noppaluwuñu dañoo dem dugg ci ay biiri néeg defaat ay gëstu ñëwaat dellu siwaat ci lislaam waaye lan moo leen indi pour yàq nekkoon yonent bi xeex nañu gañe nañu ñun du dem rek tëdd foog ñu ñëw yonent bi xeexoon ñu ñu fexe lim fi indi buñ ko mënul yàqit ñu kerejal ko buñ ko mënul buñ ko fi mënul jële it ñu tilimal ko loolu mooy cosaanu yahud chia ci biir lislaam mu nekk loo xam ne cosaanam dëgg-dëgg yahudi la ndax mu ngi delluwaat ci waajooju ngeen xam ne ñëpp xam nañ ko muy Abdullah ibnu Saba moom mooy waa ji nga xam ne moom la gaa yi ngemb bàkk ko dugal ko ci diine lislaam mu tuub ndeke pas-pasu chia la yor ñëw di ko tasaare ci biir julli di ndànk-ndànk fexe nag ba jaarale ko ci ay gis-gis ay xalaat fexe ba taqale lenn ci jullit yi loolu mooy waajooju li mu def ñun dañuy romb rek ak di dénkaane képp koo xam ne yàlla dimbali na la mën ngaa lire arabe wala nga mën a lire français am na benn téere bu tudd al xutuud al arida traduire nañ ko français arabe la ak français ku ko mën a lire nga lire ko ku mën a lire arabe téere bi am nañ ci lu bare bari wallahi ñàkk am fu ñu ko def ak nuñ ko indee moo tax indi wuñ ko am na mbokk yoo xam ne nee nañ ñu ngi fii incha allah danañ fi ñëwaat dañ leen ko jox buñ fi ñëwee ñu jox leen ko mooy manhum ashia al isna asari ñan la ñoom ñooy ñan ku ko mën a liir nga liir ko dinaa romb romb yu gaaw ci ñun ak ñoom te pourtant ñoom dañuy wax na ne ñoom day ay jullit lañ waaye buñ la waxee seen mbir rek sa yaram daw xam nga loolu tey moom mooy problème mu lislaam nga gis jullit yoo xam ne dañoo wuuteeg yonent bi waa naka la yàlla di tànnee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wala yàlla tànnul muhammad yàlla kan la tànn du muhammad la wax yàlla subhanahu wa taala lan la wax ci ay mbokk bi jiite woon démb ndeysaan timis yàlla na ko yàlla fay mu jàng alquran bu neex jiite jiite bu neex ahkaam yi maxaarijal huruf yëpp mu génni ko aaya bu mu ñu mujjee jàngal mooy yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illah wa rasulahu ee yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi na ngeen nekk ci ginnaaw yàlla ak yonentam léegi nag ñun julli ni ñu ñëw wuuteeg yonent bi te yàlla dana woon buñ ko jiitee bu njëkk bi ci maa ngi conseiller mbokk yi ñun ñëpp ñu góorgóorlu mooy ñu xam ñoom seen yoon aslu mazhabihim pour ñu xam ne ñun ak ñoom duñu benn dëgg te ñoom dañ naan ay jullit lañ lislaam lañu gëm ci lislaam lañu nekk waaye bu ñu jàngee seen cosaanu yoon ñu xam ne ñun ak ñoom duñu benn ak luñ leen yërëm yërëm yërëm même ñu ñu njëkk ña dañ doon wax ne bu leen kenn takfiir mais ñu bees ñi dañuy wax ne ñii duñu ay jullit ndax seeni pas-pas ak ñun dañoo wuutee kon damay conseil mbokk yi ñun ñëpp ñu fexe ba xam asl mazhabuhum cosaanu lan mooy cosaanu shia fan la jógee wax naa leen léegi mu ngi jóge ci yahud yi lu jóge ci yahud ndax ab jullit mën na koo gëm lan la yàlla waxoon jullit yi la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu man hum léegi nag mbir mu jóge ci yahud ndax kon ab jullit mën na koo gëm yàllaa ñu waxoon ne ñi gën a bon ci àddina bañ jullit mooy yahud te cosaanu mazhabu shia ci ci yahud yi la jóge ñaareel bi mooy itiqaaduhum fillah yàllaa leen bind de ku bàyyiwul yàlla nag du bàyyi leneen damay conseil mbokk yi ñu jàng pas-pasu shia yi ñoom nan la ñu gisee allah mi seen borom mi leen bind mbokk yi ku tuumaal yàlla mi sa borom ndax di nga bàyyi yonent ku wegul yàlla mi la bind te loolu tey gis nga même tarixa yi nekk fii tarixa yi xoolal da ngay jeg ñu ne la yaay yàlla waaw yow yàlla nga rajo bi yàlla la big bi yàlla la léegi yàlla moom mooy kan xanaa yàlla amatul faayda xanaa yàlla amatul njëriñ bu ñu fekkoon benn jigéen ñu ne ko yaay Macky Sall est-ce que moom mooy Macky Sall loolu la nit ñi di wax lu nit ñi di wax kii dof la de muy waat di yuuxu naan ku jigéen kii mooy Macky Sall di yuuxu lu nit ñi di wax kooku papaam lu muy wax papaam dinaan sama doom ji dof na waaw naka lan mën a gë- mën a gisee nit koo xam ne ku mu gis mu ne yàlla la ñu ne kii normal na beneen mooy qawluhum bi tahrifil quran gis nga te xam nga lu tax mbon mbon doy waar mooy boo xasee dugg ci mbuntu mbon buntu yàq ak yàqute soo tàmbalee soo nee benn rek da ngay départ te loo def xeeb ko moo tax bi seen mazhab baaxulee yoon wi ñu jël baaxul yàlla mi leen bind munta baax ci ñoom bi yàlla muntee baax ci ñoom est ce que waxu yàlla mënati na normal ci ñoom soo jàngee seen wax ci lu ñu wax ci Qur'an bañ nañ ko sax ba suñu Qur'an bi gëmuñu ko ñoom dañoo yor seen Qur'anu bopp léegi sax lañ commencé léegi nii te yenn ci seen i borom xam-xam ñoo leen soññu ne leen bu leen def loolu il faut ngeen gëm Qur'an bi nangam ak nangam dee leen julli ci ginnaaw mais gëm musuñu gëm alquran bi parce que dañoo yor seen téere ba tuddee ko mushaf fatimi kon qawluhum bi tahrif alquran ñoom dañoo gëm ne alquran bi matul alquran dafa manqué alquran bal wax ci ay wax yu doy waar yooyu dañuy junj dañuy junj nii rek incha allah bu ñëwee ci questions yi ak débat yi fala ñuy leeralee lu ëpp ci loolu beneen bi mooy al imamatu indahum ruknun wa takfiri man la yuminu biha al imaama xam ngeen imaama suñuy nodd da ngay dégg ñu dugal ci imaam bu ñuy liqaam dañ ciy dugal imaam ñoom ali mooy seen imaam dañu ne imaam ci ruknul benn ruknul min arkaani diin dañ ko ciy dugal loolu loolu dafa dafa wuteeg ñun bokkul loola tax ñun mbiri wala leer ci ñun lu ñu dof dof dof lu ñu bëgg ay projet lu ñu bëgg ay tool lu ñu bëgg ay jàkka lu ñu bëgg alal dëgg-dëgg nag alal joo xam ne boo ko amee ëllëg yaa ngi moom safara ngeen di dekkee loo koy doyee xam nga ñun luy suñu wax loolu laa doon wax sànq juma ci mbirum làmb ji alal joo xam ne yaa ngi moom yowmal qiyaam safara ngeen jëm alal joo lu ko nit war a doyee wala dañoo jàpp ne dundee wala da nga jàpp ne da ngay nekk fii di dund ci alal ju bon ju xaraam jooju ba nga war a dee rek nga daal di tuub rek daal di dee dugg àjjana fekk def nga ci ñaar fukki at wala fanweeri at wala juróom fukki at sa dernière minute rek nga ne ali tuub naa rek dugg àjjana loolu day yomb ab jullit day dëgër ci pas-pasam boo doon mar suuf si di yëy xeer yi ngir xiif nga dëgër ci sa pas-pas dara bum la ci jëlee mais maal asaf olof yi dañuy wax ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa parce que jànguñu waxoon naa sànko waa ji li mu wax al islam bayna naarayni quwatu aadaihi wa jëhlu abnaihi li tax l'islam bi tey ku jóg dugal ci lu la neex rek parce que jànguñ xam ngeen ne yéen waa Sédhiou amoon ngeen yonent temps yi la ay mbiram fay amoon ngeen waa benn waaye bu sant kebe fi bu bu doon wax yonent la voilà kañ ngeen mu ngoog lan moo waral loolu yi ngeen gëm ko topp ko ñàkk a jàng ah ay mbir yu doy waar ab julit naka lay gëmee loolu beneen bi mooy ñun ak ñoom bokkuñu c'est parce que ñoom dañoo gëm imaam dañ ko def benn ruknu benn ponk benn keno ci seen keno diine waaye yemuñ foofu dañu ne ku gëmul imaam boobu yéeféer la kon ñaata jullit ñoo nekk ay yéeféer ci àdduna bi ñaata jullit ñoo gëmul ruknu boobu beneen bi mooy
naa leen ko dañ koy wëlbati wëlbati nañ ko
isaatuhum linnabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam ñoom bàyyiwuñ ko ginnaaw ni ñu gàkkalee yàlla gàkkale quran noonu la ñu gàkkalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yamuñ ci moom de ak ay soxnaam ak waa këram ni ñu gàkkale yonent bi xoolal jullit boo xam ne moom dafa gàkkal yonentam kooku est ce que ab jullit la est ce que pas-pasam mbir na jullit bu gàkkal muhammad alayhi salaatu wasalaam gàkkal ay soxnaay muhammad gàkkal ay doomi muhammad ba pare bëgg ne man ab jullit laa loolu beneen wax la boo xam ne ñëwagul dañoo weddi soxnaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam takfiruhum li ummahati almuminin aïcha wa hafsa chi ak ki ñu gën a bañ ci àdduna mooy aïcha abou bakr omar ak ousmane la hawla wala quwwata hafsa sax moo hafsa hafsa sax moo taneeg aïcha aïcha moom kenn du wax waxam xoolal loolu nu mu mel nu mu doy waaw ba pare ñu ne ñoom ay jullit lañ léegi nag ñëw fii di di di ñu daggali tool ñuy bay di ñu tabax li jàkk ñuy julli di ñu nax c'est parce que lan parce que ñun jàngun c'est parce que ñun xamuñu ñun li ñu bëgg ñun xamuñu lan mooy pas-pas dañuy ñëw rek di la wax yow ngay dem dugg ci biir li oustaz doon wax sànq xale yoo xam dañu amoon ak ñoom débat biñ njëkkee lu biñ ñëwee lu njëkk a wax mooy laa sakk an na aboubacar moom kaafir loolu mooy wax ji balaa débat bi di commencé mooy balaa ñuy commencé moom mooy na ngeen xam ne aboubacar moom ab yéeféer la subhanallah allahu akbar as-siddiq xoola démb oustaz lu mu doon def ci moom bi ñëpp jaaxlee yenent bi faatu omar gàddu jaasi omar ousmane lafañ ali ma nga fële aboubacar keroog moo rek la mbir mi lan la yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax bu ñu jëloon ñëpp ñëpp seen ngëm yàlla di ci yokk ñëpp seen ngëm yàlla dina yokk ba mu des ngi ima imaanu aboubacar lan la yenent bi doon wax aboubacar daf leen rawee shay'un waqara fi qalbi mbir moo xamante ne dafa sax ci xolam moo njëkk a gëm yonent bi bi ñëpp weddee moo ko jox ah yonent bi alayhi salaatu salaam ak ndénkaane gu mu dénkaane ci moom loolu moo tax ngeen xam ne mbir yi du lu ndaw te gis nga kéeféer yi yéeféer yi li ñuy def chaque jour mooy dañuy fekk jullit yi li ñu gën a bëgg ñu koy tilimal gis ngeen problème u Danemark ak cri caricature yi ñu doon def Muhammad mooy du ñëw ci lu ndaw maa dañuy ñëw dañuy fekk lu mat lu julli di gëm ñu ñëw di laal loolu di xool julli di fan lan toll ci àdduna bi mooy lii chia yi di def xoola Aboubacar ni mu toll ci àdduna ñu ñëw ne Aboubacar yéeféer la Omar yéeféer la Hafsa baaxul Aïcha yéeféer la loolu naka la ko ab jullit mën a waxee ab jullit bu gëm yàlla ab jullit boo xam ne pas-pasam wér na beneen juróom-ñaareelu tomb mooy xuluwuhum fi ali dañoo ëppal ci ali ñu dem bare ali yaay yàlla ali moo leen rey lakk leen loolu sax am na ñu ciy jam ali ndax lim leen def waru loo leen doon lakk mais da leen tere loolu ñu bañ ndax mer gum leen mere moom ci boppam mi ñuy wax dafa tiit mu lakk leen ndax liñ ko wax yaay yàlla antal ali ndax yàlla mu ne dama kawe te yaay ku kawe ki yaay yàlla mu tere leen ñu bañ mu rey leen yemu ci rey leen ndax mere bu mu leen mere mu lakk leen ko kay kon dëgg-dëgg war nañu xam kon ñii ñoom ñoom ñooy ñan juróom-ñetteel mooy xuluwuhum fi Fatima lan la ñuy wax Fatima yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo demoon Isra wal Mi'raj lekk fa ci biir àjjana benn pom pom boobu moo formé mani yi xoolal loolu bi nga xam ne moom moo formé Fatima loolu la ñuy wax ci Fatima ëppal gi ñu ëppal ci moom kon mbokk jullit yi fukkee lu tomb pour ñu xam leen mooy takfiruhum li sahaba umuman illa min salaas sahaba yépp ay yéeféer lañ ba mu des ñetti sahaba xam ngeen loolu du dara sax loolu ñu wax noonu du dara xam nga luñ wax dañu ne Muhammad moo munta yar boo amee kër nga am fukki doom wala nga am ñaar fukki doom ñu ne benn doom moo baax comme yow papa ji munoo yar yow yaa échec saxaaba yi 124000 la ñu woon ñu ne kenn baaxu ci ñëpp ay yéeféer lañ ba mu des ñett kon li muy tekki mooy yonent bi la moom moom moo échec wala waaw non farfarloo nit bu faree dootul xoolati dootoo àtte dëgg far gi ñu far moo tax ñu yàq ñëpp ñu ne kenn ñaar ñoo ñett ñoo baax ñeneen ñëpp kenn baaxul beneen mooy xiqduhum ala abi bakr wa umar wa usman iñaan gu ñu iñaan bon gu ñu bon soxor gi ñu soxore omar ak usman ak ali te ñooñu yàlla moo leen tagg ci quran yàlla moo leen tagg laqad radiyallahu anil mu'minin yàlla nee na subhanahu wa taala maa gërëm jullit yi yàlla moo tagg saxaaba yi loolu moo ñuy wan ne si ay dañuy fen yàlla du wax wax joo xamante ne nekkul naka la yàlla di waxee laqad radiyallahu anil mu'minin ana dhalika man humul mu'minin jamono yi ñan ñoo doon ay julli bi yàlla naan laqad radiyallahu anil mu'minin sahaba ah waaw kon naka naka la yàlla di wax radiyallahu anil mu'minin ba pare ñu ne kenn baaxu ci ba mu des ñett te yàlla nee na laqad radiyallahu anil mu'minin yàlla ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi jamono boobu ñan ñoo doon rijaal yi ñoom محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ñoo ñaan la woon والذين آمنوا معه man la woon sahaba al- alquran ci boppam moo leen njëkk a weddi moo tax jullit bu gëm quran nga koy jàng guddeeg bëccëg nga xam alquran li tax mu jóg dëgg-dëgg euh, boo bu pas-pasu siyaa leerul ci yow yow war ngaa xoolaat sa bopp fukkeelu tomb ak benn mooy fukkeel ak ñaar ndànk ndànk
ci seeni pas-pas bokk na ci mahdiyuhum alxiraafaat xoola ñoom dañoo am mahdi bokku ñoo ma oustaz leeral na ko keroog bi ñuy def euh, julli fajar ci masihu dajjal ñoom bokkuñu ak ñun ak lan mahdi yeneen ti moom bu mu doon wax keroog di leeral na nit ñi imaamul mahdi al muntazar bokk na ci yeneen ti la wax al mahdi yu minni mahdu yi ci man la bokk sama tur mooy turam sama turu ndey mooy turu yaayam sama tur baay mooy turu baayam léegi nag ñun ñoom ñu am al Musa al Kazim te yonent bi nee na Muhammad lay tudd sama turandoo lay doon waaw ñoom ñu am mahdi mahdi seen bopp bokku ñoom ñun mahdi seen pas-pas yi loolu ci la bokk bokk na ci xuluwuhum alqabi fi ibadati alqubur dem naa madinatul munawar bi ma demee dugg ci jàkka ji julli naafila dem rawdu rasul ziyaare génn dem baqiya fi ñu suul saxaaba yi booy dugg bunt bi dañ ci def benn tableau bu gudd ci kaw tableau bu bleu ñu def fi nu ñuy ziyaare almeer yi aadaabu ziyaaratil xubuur nga liir dugg ma dugg fekk benn débat ay chia yu ñëw ci biir armeel yi bëgg faa def al- ay xuraafaat gis nga bëri na tey ci lu nekk ci suñu dëkk yi ci lu ñuy def ci bàmmeel yi ci ñooñu lañ ko jëlee ci chia lañ ko jëlee bëri na lu ñuy def suñu bàmmeel yi fii même bu ñuy suul nit ku dee nga- nga gis ku dugg di bind ci tur bi Fatimatu Bintu Asad ci si ay lañ ko jëlee ak yeneen yu bëree bëri gis nga débat bi benn xale bu góor bu wékk loxoom ci ginnaaw ndeysaan taxaw ñëw gaay yi ànd ak seen sëriñ nga ànd ak mbooloo mu bëri ñëw bëgg a def ay caaxaan ci biir bàmmeel yi débat bi taa di tàng lu ñu wax waa ji teggi ko lu ñu wax waa ji teggi ko ma xool leen xool leen xool leen déglu ñaar yëpp kuréel yi ba ci yàgg ma avancé fekk beneen xale bu mel noonu mu taxaw fekk naa benn bàmmeel bu gudd bu ñu naan bàmmeel Ousmane Ibn Affan ma ñëw ne waa ji lu tax soo laajee duñ la wax tur yi ñu tëdd fii li tax loolu laa leen bëgg a wax ma ñëw ne waa ji asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ma waaleykum salaam ma ni ko man huwa ah, qabru haza sahabi haza man mu ne ma sahabi ma ni ko mas mu mu ne ma asmaahum la yanfa wala yadur du'a faqat gis nga ma ne ko ku tëdd fii mu ne ma sahaaba ma ne ko nu mu tudd mu ne ma turam amul njëriñ ñaanal ko rek boo ñaanale ñaanal la sahaaba yi boo ñaanalee sahaaba yëpp ñaanal nga kii gis nga mais ñun bu ñu demee day gis ñii di tibb ci ay suuf ñii di tibb xeer ñii di jooy ñii di bërëngu yooyu lañ jël indi ko fii ci sunu bàmmeel yi buñ duggee ci bàmmeel di toroxlu nga gis ku dugg ci bàmmeel simmi mbax ne dindi kaala di wax ndànk dafa ne borom bàmmeel baa ngi lay gis wala mu ngi lay dégg benn borom xam-xam dafa gis benn xale mu mu dugg ci benn bàmmeel di ñaan visa cheikh bi wallahi lazi la ilaha illa hu soo ma dimbaliwul ba ma am visa billahi sama dara du baax sama àdduna du baax sa- di yooxu cheikh bi xool ko ba ci yàgg mu ne ko eh saahibu hazal qabr zahaba ila dakar borom bàmmeel dafa dem dakar de mu ne ko xanaa yow da ngaa dof nan ngay waxee ne kii dafa dem Dakar kii dee mu ne ko ah ku dee nga koy ñaan di jooy te nga ni dafa yow yow xanaa da nga dof waa ji ne teg mu ne ko nga ni lan mu ne kii kay dafa dee mu ne ku dee nga koy ngay ñaan ni comme ça nga bàyyi yàlla loolu mooy sunu problème sunu lii ñuy def yëpp ci si ay lañ ko jëlee lii ci bàmmeel yi bàmmeel yi ñuy bind ak bàmmeel yi ñuy yëpp ci pas-pasu si ay lañ ko xoolal si ay yi niñ def xoolal ba ki rey Ali ki rey Umar Abu Lulu keroog bi ma koy jàngal sama xale yi internet dama dama dama kon indi wifi bi indi ordinateur ba ci kanamu tabla bi ma génne leen bàmmeel bi en direct da ngay dégg ñu allahumma xshirni ma abu lulu ah allahumma xshurna ma abu lulu ah di di wër bàmmeel bi comme kaaba gi naan yàlla yal nag ñu dekkil ñu ànd ak abu lulu ah xoola ki rey umar ki rey umar dañoo tabax bàmmeel bi comme aljanna mbokk yi bokk na ci muwalaatuhum lil kufaar suma su jotee ngeen xam ko mooy far bi ñu far ñoom ak yéeféer yi xool au lieu ñu far ak jullit duñu far ak jullit yi yéeféer yi la ñuy faral si la noonu si dañoo bon au lieu ñu far ak jullit yi ànd ak jullit yi yéeféer yi la ñuy faral ci lépp lu am loolu moo tax ñun ak ñoom bokk ñu pas-pas bokk na ci xiqduhum ala makka wal madin makka rek lañ bañ makk dañuy ne bu ñu demee ci kaaba gi buñ duñu julli ci ginnaaw imaam yi buñ julle dañuy julliwaat lan moo leen jële ci loolu mooy Khomeini Khomeini moo leen ci jële wala buñ demee ci bàmmeelu Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ziyaare ko ba pare tufli Aboubacar ak Umar ak Aïcha ak kii xaaxta di ko tufli leen moo tax léegi ñu leen fay tere dugg ñu bari dañuy wax ne waa Màkka dañoo soxor ah dem ba ci bàmmeelu yonente bi ñu naan doo ko laal parce que jàngu leen parce que jàngu leen Eh, dem nañ kër gi yonente bi juddoo ay nit ñëw di raay miir bi benn cheikh xool leen ba jàng mu ne ma yaa cheikh qul haulaay anna haza hajar laysa bi rasul haza hajar ñu ne lu mu wax Eh, ñu ne lii mu ne lii miir kese la ñu ne miir dina dimbali ñu miir xam nga ne lii du miir kese miir yi moo gën miiru Sénégal yi yéen da ngeen a dof. kenn mënu leen wax lu dégg dimbali ñu de ñun de dañu koy raay ma wax ba sonn mënuñ ci dara kon mbokk yi tomb yi rek laa leen doon junjal su ko defee li ci war ci ñun nag mooy ñu jàng pas-pas yi ñu xam ko damay conseiller mbokk yëpp mbokk jullit yëpp ñu jàng téere bi téere bu gàtt la bu ndaw la te daf ko tënk tënk yu ndaw bi bi lenn lu nekk benn la ci indi mooy manhum ashia al isna asharia kenn ku nekk mu liir ko ndax mu xam ko incha allah loolu laa doon ubbee waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngeen li mbokk di wax di muy oustaz Saïd li baarakallahu fiihi